waaw tey ci suba dañu am ginnaaw bi président lancé projet bi le 24 juin bi passé après ñu nommé directeur bi muy Ibrahima Diagne mi taxaw fii euh, ñu commencé liggéey bi tey mu nekk comme premier comité de pilotage ba nga xam ni ci présidence ministère de l'urbanisme lañ ko def ma ñëw sama bopp teewal sama bopp ak acteur yi ñu concerné parce que ci comité de pilotage bi ministère yi yi nga xam ni lépp am nañ loxo ci biir déchet ñu ngi ca partenaires yi nga xam ne aussi ñoo ñu jàppale ba ñu mën a am xaalis bi mën a yemb projet mën a démarrer mais aussi collectivité territoriale yi nga xam ne maire yi nga xam ni c'est président de l'association des maires représentant si kon loolu mu nekkoon li nga xam ne tey li li ñu doon def mooy d'abord ñu installer comité de pilotage bi ñi ñi xamante ñëpp xam lu leen liggéey bi lu leen lënk ba pare nag directeur bi ci boppam présenté li ñuy wax plan euh, plan de travail plan de boobu boobule mu def ko ci ñaari at 2021 bi ñu jàll liñ commencé liñ fi commencé woon def ñu régulariser ko valider ko ba pare lii ñëw 2022 ñu xayma ko xam niñ ci mën a def xalaat sax ba 2025 nan naka la war a mën a demee loolu nag bu ñu ko d'accordé ba pare mu wax nit ñi principe yi nga xam ne loolu la war a liggéeyee naka la ñu war a téye projet bi li ñu war a mën a tënk mooy projet bi dafa laaj ñi lënkaloo nekk ci mbalit mi ñëpp nekk ci parce que mbalit mi dañ ko bëgg a transformer mu mañ a nekk rek mañ mañ a nekk difficulté léegi ci Sénégal non seulement ñu mën a am Sénégal propre comme ni ko président bëggee muy Sénégal zéro déchet mais aussi mbalit mën a nekk luy indi xëy mais luy indi aussi koom-koom loolu loolu ci ëpp solo mooy mu indi koom-koom indi ay xëy xayma nañ projet bi bu doxee nii mu war a doxee ñetti junni emploi nga xam ne dañ ko créer ci biir ci biir livre mais aussi dana créer lu nga xam ne koom-koom bu nga xam ne ñi ciy liggéey ku ci nekk danga mën a am sut lu nga lu nga suturloo te président dafa ne woon lu mel ni décharge de Mbeubeuss dafa amoon ñu ci fay daan seen doole bu kenn ñàkk liggéeyam ci li mu doon def loolu tamit ñu intégré ko ci te balaa ay ay ay ay semaines yii nii dañu lance appel d'offre bu nga xam ne moo war a gérer mbirum Mbeubeuss mais janvier yaakaar nañu liggéey bi dana door convenablement nit ñi gis ko ci ci biir ci biir. Euh, ci biir Sénégal ci 138 communes yu mu concerne tey ñu nekk ci loolu waxtaane ko adopté yooyu plan yooyu yëpp ñu adopté ko mais ba pare xool ëllëg bu projet bi naka la war a mën a demee ma ciy félicité directeur bi nga xam ni moom la président woolu teg ko ci kanamu projet bi félicité aussi ñëpp ñi nga xam ne ci ministère bi ñu ngi liggéey ci déchet ñu wax leen ko ñoom ñëpp ñu war a lank lënkaloo nekk benn ñu liggéey parce que politique publique président moo koy définir mais ki ci wóolu ñi mu ci wóolu ñoom ñett ñi par exemple directeur général du cadre de UCG directeur projet bi ci biir ministère bi ñoom ñooy lonkaloo ba liggéey bi mën a dox mais du ci ministère bi rek lay yem parce que li li ñuy def nii ci mbiru mbalit mi dafa intéressé aussi ministère des collectivités territoriales intéressé aussi ministère de l'environnement durable intéressé même ministère du pétrole ministère yu ñu lëkk yëpp ñun tamit ñu lonkaloo nekk benn doxal lu nga xam ne parce que bu ci amee xiiroo ngaayoo rek dara ci mën a sotti te dafa am non seulement dañu am confiance président de la république mu créé projet bi mais aussi dañu am confiance pour ay de fonds ñoo xam ne duñ ca dugal ñu bëgg aussi régler un problème économique ci ci réew mi ala kulli il faut que ñu lënkaloo suñuy doolee ba yaakaar bi ñu am ci projet bi ñu mën koo gis. donc euh, projet bi fi ñu toll dafa nekk si tàmbali donc vraiment amul ay jafe-jafe si biir projet bi maintenant aujourd'hui objet projet mooy que ñu euh, régler jafe-jafe yu am si secteur bi. ci secteur parce que secteur bi soo ko gisee am na ay jafe-jafe si wàllum koom euh, parce que xaalis bi ko collectivité locale na am ñoo compétence bi soxla pour gérer mbalit bi xaw na matali euh, parce que population bi ñu fay taxe bi actuellement deux milliards nañu collecté taxe bi pour plus de vingt milliards de potentiel euh, mu nekk lu néew Euh, mais aussi am na ay jafe-jafe tamit si comportement population bi donc ñuy sànni mbalit un peu partout euh, ce qui fait que jafe-jafe yooyu le projet bi bëgg euh, régler donc su ñu koy régler mooy que ñu boole population bi responsabiliser leen à travers un engagement citoyen mais aussi que projet bi aussi mën a taxawal aussi ay infrastructure parce que actuellement Sénégal ay décharge sauvage nañ fi am yoo xam ni dafay jur ay gàllankoor ci environnement bi donc yooyu noonu nañ fas yéene effectivement jël en charge à travers projet bi bi nga xam ni que cette région le concerné muy Dakar Saint-Louis Thiès euh, Matam Ziguinchor Kolda Sédhiou ci première phase bi donc pour 206 milliards de francs fa actuellement gouvernement bi mu ngi waxtaan ak partenaire pour que ñu yaatal projet bi mën a dem Kaolack mën a dem Kaffrine mën a dem Fatick mën a dem Diourbel mën a dem Louga pour que mën rapidement ñu mën a matal Sénégal bi Euh, li gën a jàmp actuellement muy décharge du Mbeubeuss parce que décharge du Mbeubeuss actuellement dafa jox ay jafe-jafe lool si euh, wàllum euh, environnement bi mu am plus de 2000 personnes yu fay xëy donc actuellement dégg ñu pare dossier d' appel d' offre pour que mois de janvier ñu mën a lancer appel d' bi pour mën a def liggéey buy tëj décharge de Mbeubeuss mais avant ñu yegg si lool dañ def ay mesures d' urgence pour améliorer déjà li nekk Mbeubeuss et lool appel d' bi def nañ ko ba pare marché bi attribué nañ ko jàpp nañ ko fii ak euh, décembre liggéey bi nag tàmbali si décharge de Mbeubeuss bi mais aussi tam ñu ngi ko defee Mbeubeuss tamit nañ koy defee si yeneen décharge yi mooy ni ko di yaatal yoon yi defaraat plateforme bi mën a xam ni que mbalit bi dañ ko mën a jenc bu baax donc ni ñu ko defee mbooloo noonu ñu koy fas yéene defee aussi si Thiès si Gandon si Mbour ak si yeneen décharge yu mag donc euh, projet bi euh, li ko gën a tax a jug mooy euh, économie déchet bi mooy ni ñu fexee ba koom-koom mën a judd si mbalit bi mais aussi ay xëy mën si judd si loolu projet bi waajal na taxawal cent cinquante infrastructure ay infrastructure yoo xam ni si jiitu mooy ay point de regroupement normal yi na xam ne mooy nekk ci koñ yi euh, mais aussi surtout ay euh, usine mbalit donc Dakar dina am ñaari usines yu mag euh, mu ànd ak ñetti centre de tri yoo xam ni que mbalit bi su ñëwee dañ ko trier lépp luñ ci soxla ñu mën koo wocc pour mën a ko valoriser donc valoriser def ko matière première wala valoriser mën ko def énergie wala valoriser mën ko def tos donc ni mu amee Dakar noonu lay amee ci Thiès noonu la amee ci Saint-Louis Matam yi